ñoo nekk ci wér-gu-yaram jànkoonteeg yenn jafe-jafe ci seen liggéey moom la noo jànkoonteel ñun ci gàll bañ toogee di jël suñuy yoon di leen saytul jën wa ngeen di consommer ci senegal yenn ñu koy liggéey ci laboratoire mu doon loo xam ne kon tey ay risques la ñuy jël ci wàllu luñ mën a assurer euh, ci biir géej ñu doon ñoo xam ne tey Euh, ñooy saytu lu fiy dugg ci géej ci jën wala muy gën ci jën mel ni ña nga nekk ñi xam ñooy contrôler ci waa duwaan ak waa commerce ñooy jël suñuy bakkan gar ko dem géej di saytu di sàmm suñu géej ni marin ba nekk armée ñu dellu tamit ci wàllu kaaraangey lekk dund ni ko waa élevage di ko defee waa agriculture di ko defee ñu doon ñoo xam ni tam defe naa ci wàllu lañ taxee ci wàllu géej gi ñu toog di jàngale di yeete ci jëfin yi baax ci doxalin lu tax mool wala kull kuy liggéey ci wàllu géej nekk ci anam yi gën kon ñu mel ni jàngalekat ñu doon ña nga xam ne tey gu guddeeg bëccëg ñu ngay liggéeyal nguur gi te lu tax loolu yëpp ndaxam suñu lim moo néew te su suñuy rakk suñuy jarbaat a ngi ni génn ami seen diplôme kenn recruté wu leen parce que bu ñu fi nekkoon xëy na bu ñu xaajoo liggéey bi ñeneen du liggéey ku si ñun ñu doon ñoo xam ne tey ku ne ci safaan ñu jàpp la teg ca yoon mais nab sandat léeg ñu yóbbu la kayit yi atte ba teg la alamaan ñu mel ne magistrat attekat kon ba tax na ñii ma lim nii ñuy def lu méngoo li ñuy liggéey lan la ñu ëppalee bay am leneen duñ ko am ñun tey ñaar fukki junniy gaal ak juróom ñoo leen di bind di leen saytu ñu mën di dem géej di ñëw mu mel na ab agent service des mines ci oto ya kon ba tax na bañ xoolee loolu yëpp ñu nekkoon tey foog ñu taxaw jaamaarloog état parce que tey dañoo toog ba seetlu lenn ni euh, lii ñuy def yëpp ci état ñooñu am lenn li ñun amuñu ko looloo waral suñu jotaay bi tey janoo bi ne nañ waxtaanee loolu yëpp mais mu tënku ci ay ponk ya nga xam ni. mu tënku ci ay ponk ya nga xam ni benn. bañ ñu toxalee jam ñaaw kenn ku ne xam ne jam ñaajo neexut a dem njëlbee nga dañ joxoon a oto biis yi ñuy yóbbu ñu toog ba Covid ñëw jëndi biis ya su ñeneen naatangooy ba tey am na ñuy biis leen ba ñun amuñu biis bu ñu yóbbu am naa am maa tey boo bëggee liggéey sax mu tëla nga yaacaaral kër ga te gënalul la kon aajoo na tey ñu seet nu ñu yóbboo nit ñi comme ni ñu defee bañ ñu toxalee jam ñaajo parce que bañ nekkee Dakar kenn musul jàmbat transport euh, suñuy yi nga xam ni ñoo nekk ci gox-goxaat yi bërëb ni liggéey benn jagu ca dinaa ñëw ci lenn jam ñaajo parce que tey ci syndicat bi am na ñoo xam tey du ñuy technicien mais chauffeur si tey tabax nañ ñaajo ñu nekk ak ñoom foofu bu ñu gaaree amun fu ñu dugg salle de conférence li ñuy squatter ñu leen di dàq na dàq parce que aussi ka lay dawalal bu mënta toog ñu am fu mu noppalu sax ba toog waxtu jot mu yóbbu la wóorut et pourtant c' est des comme ñun techniciens yi ñun ñit ci bureau yi bañ ca jógee tamit tey ci gox gaat yi ma ni da ngay dem fu mel ni Kédougou wala nga mel dem fu mel ne chef de inspecteur départemental ba amul sax warwaay bu mu mënee def liggéeyam nga mën a toog nar a jël jakarta pour wër gox yi ngay du ngay couvrir nga loué jakarta dañ ne loolu dafa war a dakk waaye benn bi ci gën a métti moo di tey sunu kilifa ca ministère ba dafa am nu mu doxalee noo xam ni dañ koy wax fii gënaluñu ba mu toogee ba tey dafa def lu yées ñu ko fi jiitu waxtaan nag ñëpp waxtaan ak syndicat yi ñu bind ko benn yoon fàttaliwaat ko tontuwunu ñàkk weeg weesuut loolu te daxam nag du ñuy noon ci service bi ay agent la yoo xam ne partenaire lañu ñu war a doon ak département ministériel waxtaan woowu bu teguwut mën nay jur li tey ci loolu yëpp situation agent contractuel yi am na ñoo xam tey dañuy dugg tey bu ñu duggee am téeméeri ju ñaar fukk ñaar fukk junni feeku ba ba ñuy génn moom la ñuy feeku amuñu possibilité def yenn concours ni ñun ñu def ay fonctionnaire ñu mën a jàll ci beneen passerelle dañ ne loolu dafa war a deñ il faut ñu ubbi leen yooyu ñu waxtaan ñu mën a samp contractuel bu dugg ngay mën di avancer man di changer statut di ami bourse ni ñeneen ñi Euh, buñ ca jógee ci wàllu woowu dañ daan toog ñu am ñu ñuy seppi ne leen dem leen tàggatu ji wala organiser concours ñenn ñi mën a jàll pour jàll jéggi benn grade jéggi benn dem beneen grade tey dafa fay ren gii nii concours technicien supérieur amut université ña fay dem kazalika amut doon nañ koy joy boobu mu ngi desoon ay benn ñaar dafa amutut ren mais dañ ne loolu daf ñu ko fekk moo tax man dafa def lu yées moromam yi waaye ñu sant yàlla ci lenn sant gouvernement bi parce que tamit ba ñuy xeex fii amoon na suñ naataango yoo xam ni ay observateur lañ état amee leen lu jege deux ñaari milliards 82 ba 2002 bon xeexee tamit ñu gërëm ci ñi ci taxaw ba tey saafara tàmbale na ceem ba am loo xam ñu ngi koy def seen njaboot yi parce que ñi ci bëri si ñoom dëddu nañ tey seen njaboot fi des te ba ñuy dund situation boobu ñii seen kër tas na ñu sant yàlla tey parce que tamit xeex bee nu ko may bon mën ko am. bañ ci jógee ci loolu nag ñuy laaj leen ci wàlli peyoor dañ ne mënuñ nekk ingénieurs yi jàngandoo nombre at yi ñu am kii fayeeku soixante dix mille ci indemnité particulière kële am cent quatre vingt mille dañ ko war a seetaat ñu toogaane kon indemnité logement comme ñu ma ko waxee sànq dafa di lu ñu yee lool parce que mi ngi ci plateforme at koo toog boo nekkee ci gox yi guddeeg bëccëg samedi dimanche yaa ngay liggéey indemnité logement war na la parce que ñu koy jox ñeneen defe naa gënuñu ko yellu ci li ñu ma wax sànq eh, buñ fa jógee tamit ci wàlli formation bi nañ ci dellu si mais suñuy ndaw suñuy rak yi nga xam ni ñoo génn tey ami seen diplôme te ñun ñuy dee ci liggéey dañ ne nañ leen recruter en masse parce que recrutement fonction publique bu ñuy jël ay secteur secteur ay 400 ngay dégg ci élevage ak feneen ñun duñu weesu juróom-benn fukk mu su 60 benn yoo lañ fi am 74 xamu 72 et c'était en 2014 dañ ne nañu recruter suñu rek nga sortaay yi nga xam ñu ngi diplômé ci université yi école yi euh, ci lañ taxaw nag kon ci tënk ci wolof lii moo tax ñu woote tey ne dañ fiy daje déposé nañ préavis de grève ba nga xam juróom-ñeenti fan ci décembre lay jeex euh, ñu ne nag dañuy woo nguur gi nan nu oo ci waxtaan ñu defar lii parce que woote nañ fi président joxe ndigal ci mois de mais jëfewuñ ñu toog ba sama mu joxewaat ndigal waaye li ñu constaté moo di agriculture ak élevage ñoo ngay waxtaan bay nësër lu ñu defaree seen yëf ñun suñu bos dafa yéeg ñu ne nañ yëglu nañ yëglu ñu mën ñoo defaral bañ si boobu nag dañ ne nagamalaguñu maanaam koom-koomu napp mi et bi yoon defe naa du jaas fa lañ jëm fekkee nangu waxtaan ak ñun te information yi nga xam dañ koy soxla pour statistique dinañ ko téye ñooy certifié jën muy jën bi bañ naan koo ma ngi dugg fii danañ ci taxaw lànk bu daaba dañ ko defoon mais ren dañ ciy dellu buñ waxtaan la ñun plan d'action bi dina leer ci wàllu woowu donc ci gàttal laa mënoon lu may tënk euh, sant leen gërëm leen waaye tamit lancer appel à ce que nguur gi vraiment oonu waxtaan bu dee nun suñuy kilifa mënuñ ñu boo teeral nu fan war a teer dañuy doxal sunu bopp yegg fan war a yegg wasalaam